nee naa leen bawul bul dégg daal di gis rek di waaw gis dama war a leer dégg dégg war a xóot la ca biir du lépp lu ñëw rek nga góoy leer Moko déglukatu radio Joko FM asalaamualeykum wa rahmatullah Rafael Lucen and ak Radio, Radio, Del si koy def dimanche bu émission politique Assane Diour féete ci xarala gi Moussa Pouy ci xukaay bi di wax dal leen ak jàmm ah, fas yéene nag euh, dalal gan ki nga xam ne moom moo di Abdou Aziz Sy Ndiaye moom nga xam ne euh, moom euh, responsable APR la bar Bargny yor fa nag li nga xam ne moom moo di taxawaayu ndaw ñi ah, naka noonu nekk ab conseiller municipal ba tey foofee nga xam ne moom moo di Bargny ñu dénk ko commission bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu ndaw yi ak tàggat yaram ah, moom la ñuy dalal fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam moom moo di tolluwaay bi APR ca bari ñett benn bokk yaakaar ga ñu lëkkalool ah, ci doxalin wate ñu weesu ak yi nga xam ne également moom moo ah, a wara di dellusee naka noonu itam li nga xam noo di actualité politique si biir ah, réew meek diwaanu Bargny rawatina itam li nga xam ne daanaka moom moo di tolluwaay bi ak seen nammateef sax sa jamono yooyu ñëw ci yeneen i wote Abdou Aziz Sy Ndiaye ñu ngi laa nuyu maa ngi laa fay Moussa. di la wax dalal ak jàmm tey yaa doon suñu gan ci euh, nga xam ne moom moo di suñu émission jàkkaarloo politique su ma fàttali ko bi mooy sa gulet ak man. Euh, di la wax euh, dalal ak jàmm ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokku auditeurs yi buñu ñu noppee ci loolu tey nga wax ñu suñu doon présenté Abdou Aziz Ndiaye mooy kan. jërëjëf Moussa gannaaw bu ma la nuyoo nuyu Assane technicien bi di la remercier aussi ci invitation bi. Euh, di leen présenter aussi itam sama njaal ak njaalu commune de Bargny parce que euh, ki fi wàññeeku muy Jules Sow xam ne sportif la woon ñun mhm. donc ñu koy jaal ci turu Bargny ñi leen ko jaal bu baax a baax yàlla na ko yàlla xaare di nuyu waa bar yëpp ñi xam ne ñu ngi ñuy ñu ngi ñuy déglu mhm. ndax xam naa ne tey émission bi ñi koy déglu bëri na lool ndax liñ fi war a waxtaane tey moo am solo Iya. voilà diko ko mom di nangu njaal mi delluwaat également yeesal ko ci wetu euh, ñi nga xamne ñom ñoom ñoo di euh, wa njabootu euh, saw ci fa nga xamne ne daanaka ñoo nekk ca Koloban ba rek nga xamne ne suñu way jojé xamna sax mbir mi mom neexut a lol lol ñaanal ko suufu ciow len sedd lol ci kawam njabot gi itam yalla tek ci ñom loxo kooku mom wax dëgg yàlla munuñoo lepp ci wax ci limu mu meloon ci mbaax ak dem solo bi nga xam ne amaloon na ko euh, askan wi njëriñ bi naka noonu la mu amaloon njëriñ euh, njabootam ndax euh, seede yi boob ak léegi nii ñu ngi yëkkatu dakkul xam dinañu wéy di jooy te du jeex macha allah di ñaan suñu borom xarek aljanay firdaws moom mamadou sow ñu gënoon ko xam ci jules sow rawatina sax li mu doon diggaale ak ñun ci wàllu tàggat yaram daan toog fii ma toog tey ñun ñoo doon nekk fële ca terrain ba itam mu nekkoon koo xam ne sori woon sonn na lool ci ñun ndax la nga xam ne moom la ñu diggaale ah, ci wàllu liggéey bi di lu am solo loo xam ne wax dëgg yàlla Euh, lu rafet rek la ci def loolu mom suñu baat ni poto euh, sañ ñu ko sédé ci mom lepp lo xamné ne jëf nako ci lu baax ci walu liggéey bekk digalé ñaan digalé yan na fa fekk doon aw yu bu bari ñu bañ ko ko fay ay bor la ca dess lepp nak yalla daanaka def ko ci njabot gi def ci barké bu bëré bëri macha allah euh, taxawu len topoto len ndax nak yalla mom bu namé jaam dañuy dëddu daanaka loolu moom macha allah yal na yàlla amin barke sayyidina Muhammad légui nak délousé ya ci suñu gan. Ah, gannaaw ba ñu yeesalee njaal mi ci suñu wetu naataango boobu dem di ah, Jules Sow ak mboolem aji dem yi Abdou Aziz Sy Ndiaye tey suñu la doon présenté yaay kan. Euh, Moussa xam naa wax sa bopp dana xaw a jafe tuuti lool waaye xëy na ma wax ci rek parce que Abdou Aziz Sy Ndiaye un la de père et de mère samay waajur juddoo Bargny nekk Bargny ma màgge Bargny euh, jànge école primaire école mixte bi ma jàngee école mixte bu pare am sama entrée en sixième dem Saint-Bargny bi ma jege Saint-Bargny jaar lycée Abdoulaye Sadji bi ma paree dem université bi ma paree dem jàngale ji en tant que volontaire bi ma jàngalee en tant que volontaire jege fa dem école normale supérieure de formation deux ans pour mën a doon professeur actuellement professeur la si CEM loolu mooy sama jaar-jaar euh, tamit yàlla def aussi tam tey ma yor fonction wu président conseil président commission jeunesse sport et vie associative de la commune de Bargny loolu waa Bargny ñoom ñoo ma ko denk beneen bi mooy aussi tam yàlla def aussi mooy œuvre ci politique bi parce que ba mu dalee politique jàpp naa ne boobu treize ans la am yàgg na lool ndak liko andi moy dama dekkone ak sama mam, sama mam senou bu gay sama mam la sama rakku mam la mu da andi foti Ablaye wad suñu kër ci la amé photo yi taf ko sama nek à l'âge de 13 ans bi Ablaye di ñew Bargny en 2013 si ñi ko jël won carrière andi ko bari ci la bok donc yalla def mu semaine ak ñom PDS ak ñom ba en 2012 ci la defee conférence de presse wax na damay jëlé sama activité comme le président Ablaye wad nee na mënatul don candidat ci noonu laa génne PDS yàlla def ma àndoon nag ku ñuy wax Mbaye Diouf ma kay gërëm di ko sant ndax tey jàpp naa ne lu nekk ci man rek moom la ndax papa la ci man giddaloon ci man orienté ma ci lu ci lu bëri ba yàlla def nag en 2014 ñu teg lu ñuy wax ALB ma ànd ak sama mouvement dem ALB yàlla def bi ñu gañee aussi euh, ci la ñu ci la ci la ànd ak monsieur le maire Guèye euh, ci la ñu duggee APR ci biir boobu ci biir loolu bu léegi ci la ma ci la ma APR département bi national yëpp xam aussi ba tey ma war a taxaw taxawaayu jeunesse su Bargny APR bépp Lolou moy sama jaar-jaar. Lolou mooy jaar-jaaru Abdou Aziz euh, ah, donc euh, ci euh, Lolou nga xam danaka sax mom modi taxaway bi ci wàllu 2013 ak Abdoulaye Wade ñu def noonu itam 2014 ak ki nga xam mom modi justement période bobu ak Mbaye Diouf ah, nga xam mom lañ daan wooye Abama après 2014 ALB ak APR également ak Abou Seck voilà donc mu nekkone genre ben tracé bo xam en si peu de temps. Euh, dafa mel ni dafa crescendo mbir mi da doon yéeg euh, euh, wax nga ko da nga ne sa sa maam moo nga amoon mais yakin bi gis nañu également sa papa ah moom itam ku ñu ràññee woon ci politique famille politique lañ ko mën a wax de. waaw famille politique la parce que sama papa aussi bokk na ci li ma gën a arrang li li ma gën a encouragé parce que à tout temps bu ma daa jege réunion politique su ma ñëwee di koy na nga góorgóorlu nit day am fulla ci boppam gëma li nga gëm te inshallah allah di nga mos a yegg fi nga bëgg yegg. amna amna lu mu la bàyyeelul moy fugu bi mu yor mom euh, ñame won na taxaw tek tankam ci dara du ko wacce bàyyi mari fal ñay waaw loolu loolu bu amee si man du loo xam ne warul mën a parce que ku ma la sama papa dañuy waxtaan ci lu bëri mu may conseil ci lu bëri donc tey wax naa yenn bu ma ko ci mom la ko jëlee. wa dila jall égal ma fàttoon nañu ko sa pap beneen bi. ma nga xamné mom tam dafa wàññeeku. ko bay Ndiaye Baye Daouda magi papa. ñu ngi lay dello ndjal voilà ñu lay di la di la jërëjëfal. ndjal bi ñu def. voilà et que tey Abdou aziza ah, li ñu wa ah, sétlu moy ah, tay a ngi ci municipalité bu ñi fofé gox ba gis nañu ya jamono bi lu bari ci li nga xamné mom modi ya di doxalin bi bokk na ci sax di wote réunion conseil municipal. ngeen di am ay problème mu korom ak yu ni mel est-ce que mën nañu am xayma ci tolluwaay bi ci li ngeen doxal parce que on a l'impression ko dafa am ak dellu ginnaaw wala déet. Euh, Moussa man question boobu dafa si sawar tontu ci ndax peut-être barñuwaay bëgg nañu xam ñun jàpp ma ne am na dellu gannaaw ci ni ñuy doxalee ndax euh, le conseil municipal nit ki boo bëggee doon conseil municipal da ngay dem laaj baatu askan bi. askan bi nak bu la wolé bu jox la baatam li ci dess mooy yow ya wara a taxway bi nga wara am ci fi ñuy décider ngir mom donc kep ku ñu fal en tant que conseil municipal askan bi daf la jox batam pour ngay deside. di ko togal fi xamne fofu foofu la ñuy décider maintenant bu fekkee ne amna conseil yo xamantene dañuy tok seen kër ñu convoquer len réunion conseil municipal du ñew conseil municipal né lol jappana né ne ño wara expliquer askan wi lutax du ñu ñëw conseil municipal responsabilité parce que tay yalla def na conseil municipal bu ñu woote tenir nañ ko benn conseil municipal lañ fi woté ñu ñu ñu repousser ko parce que dafa fekkon Bargny am ay événement douloureux muy ay dëj ñu amone 25 personnes yo xamné téwon nañ alors que kuréel bi 29. la ñu renvoyer ñu renvoyer conseil municipal bobu benen jour bi euh, cinq jours après ou bien le mercredi suivant samedi loolu le mercredi suivant ñu def conseil municipal bi donc amul benn conseil municipal bo xamné woté nañ ko te amul donc ñi xamante ne ñoom ñoo dul ñëw conseil municipal ñoom nañu wax Bargny fan la ñu teg Bargny jox leen seen confiance ñu toog seen kër du ñu ñëw conseil municipal. Euh, en fait euh, dafa am lu ñu leen di reprocher parce que man j'ai l'impression que euh, ku ci mel ni Waregane Seck nga xam ne moom moo di tofa bu njëkk ci ci maire bi.

première euh, première première conseil bi ñu jëkk def lañu gëyé ñëw conseil municipal bari te tey ñooñu bëgg nañu taxawat lajaat baatu baatu askanu bari donc tay ñi ngay wax fi ne ñoo ñëw conseil municipal ñom fatan nañ ne suba dañu wara taxawat pour lajaat baatu askan bi yow nga laaj baatu askan bi askan bi jox la baatam pour nga dam toogal ko fi nga wara décider fi nga wara régler ay problème am yow nga tok sa kër ne duma dam conseil municipal donc askan bi mu man jox nañ ma sen lettre pour ma dem yóbbu ko waye man damay té lettre bi tok sama kër lol non la ko mën expliquer un peu donc loolu ñom ñi xamna ne ñoo toog seen kër ñom ñoo mën wax lan motax ñu tok sen kër et japp na né ñom xalaat bu ñu am am mbébét bu ñu am baatu askan bi mo ëpp doole ñom sen bop parce que biñuy campagne dañ dañ man dama da faral di wax né li ñuy def yalla buñ ci gis suñu bop parce que buñ ci gisé suñu bop rek moy suñu intérêt personnel mo ñuy mais buñu intérêt askan bi taxee jeg lu bëri dañ koy dépassé ngir askan bi xam ne moo ñu yónni donc tey ñoom ñi xam ne ñëwuñu ñoom ñoo war a tontu ñoom ñoo war a wax la pourquoi ñëwuñu et puis suba aussi ñu xam ne ne amaat nañu rendez-vous ak askan bi xamante ne ñoom la ñu war a laaj. alors man euh, dama gis ne benn jamono euh, yàggul dara. dañ fi invité woon euh, beneen responsable boo xam ne également peut-être bokku leen sax obédience politique mais yéen a lëkkaloo Euh, ci euh, gestion euh, mairie bi le maire Djibril Faye fofu ci biir wax ji Assane la dernière fois lu ci ëpp dafa dingat nga gestion bi néna sax lu ci ëpp ci ñenn parce que dañu gis le maire souvent cavalier seul muy Abou Ahmed Seck mi nga yow ci ay est-ce que donc ngeen wala wala waxu waxu politicien la. bon je pense que Djibril Faye le maire je pense que aussi euh, lolu waxam la parce que délégation yi ñuy def yëpp moom moo ko daa jiite si monsieur le maire de la commune de Bargny yow fekk nga ñu bu taay cérémonie boo xam ne Djibril Faye moo jiite délégation wu maire donc tey bu fekkee def na collaboration amul entre moom ak ñoom euh, je pense que peut-être loolu c'est récent et je pense que li ëpp solo ci àdduna mooy àndin boo xamante ne yàgg na te sori na donc tey loolu aussi moom en tant que maire moom moo am xalaat boobu wax ko donc dama koy bàyyi moom moom moo wax loolu mais man gis naa ne day li ma seede mooy temps bu fi maire newulee dem voyage c'est Djibril Faye moom moo la mo moom mooy jiite délégation commune de Bargny alors euh, beneen fànn si ci ba tey euh, li nga xam ne moom moo di euh, jafe-jafe yu ñu nemmeeku tey soo demee ci Bargny li ko dalee ci fi ñuy woowee front de mer bi gis nañu ko nawet bi passé jafé jafé yu tar la fa nit ci am parce que ndox yi nga xamné ne euh, le euh, front de mer bi dan euh, permettre mu jaar fofu dem Bargny geej ci pont ba dafa am problème ndox mi dafa muju dugg ci lu sancu geej yi naka nonu également armeelu man ba sax ñu woté donc fofé pour def ay travaux pour mëna wañi ndox bi ñu gis na également ci front de mer bi Euh, gis nañu sax sa ah, donc Medza ak yenen artiste euh, ne dañuy def ben journée donc clean up manam setal deuk bi ndax fofu ñu def euh, crevasse pour mënon fa def drainage eau bi dafa am problème bu mag ndax dafa dajalé ay mbalit yu bëri ñu gis né li ngeen namone ci ay projet defoon ko ci front de mer bi ci li ñu également donc Bargny ville propre wul lan mo xew. Moussa fofu d'abord damay massou samay mbokk ci net bi xamné passé na li nous wax ni dund nañ effectivement. am na kër yoo xamante ne wala ou bien armeel yi inondé na woon amoon na ndox mais ni que nit ñu doon politiser yeggul foofu parce que bu fekkee ne yaa ngi fàttaliku daaw problème boobu amul Bargny problème boobu ren la am Bargny te lii waral problème boobu am am Bargny la responsabilité est partagée parce que bu ñu defaree yoonu ndox bu pare population yi xam ne lii yoonu ndox la ñu ñëw di fa këpp seeni mbalit suba bu ndox boobu waree jaar problème day am. donc loolu moo waral ndox bi doonul woon circuler di dem normalement yow gis nga ne gis nga ne bi inondation yi amee bi ñu defee intervention après am na taw yu fort yu fi jaar yoo xamante ne armée li ndox amu fa cela veut dire quoi cela veut dire que ne mbalit yi nga xamante ne moom la fa population yi dugal parce que ay saako yu ay saako yu mbalit ay xaar lépp lañ fay sànni yoo xamante ne mbalit la te jàpp naa ne le maire a toujours expliqué si conseil de ministre si conseil de quartier yi ñuy dem que ne mbalit yi nañ koy trier mu am la partie solide am la partie liquide partie liquide bi mën nañ ko verser ci canaux yi xam ne moom la ñu def si front de mer partie solide bi ñu téye ko bu oto bi ñëwee mu ramasser ko ñu tuuri ko mais da gis ne ne am na ñoo xamante ne da ngay jàpp ne ne sax ñii xamuñu lan mooy cadre de vie mm. parce que dañuy jël lépp boole ko dem tuur ko ci canal bi xamante ne ou bien yoonu ndox bi xam fa la ndox bi wara jaar. est-ce que aussi du du problème mu euh, donc organisation également institutionnel euh, nga xam ne euh, donc ñom yeen am ngeen fa déjà la responsabilité de ñi nga xam ñom ñoy def le ramassage ak la collecte des ordures. Euh, parce que bi ñu ne Bargny ville propre dañ ne woon dañuy defar en bordure donc euh, de de entre rail et route dañ fay def ay euh, ay dépotoir yoo xam ne day day intelligent également def foo xam ne également dinañu mën a distinguer li ngay wax lii léegi nii entre ordure solide ak ak li nga xam ne moom moo di déchets liquides yi est-ce que parce que yéen yéen Euh, dindi dara te tegu dara au point que les gens étaient désœuvrés finalement euh, ñu defando ab sëmbandoo ci boru tefes gi xalé également donc li nga xam mo tefes gi parce que xamuñu fan lañ ko wara yobbu je ne pense pas je ne pense pas Moussa parce que xamul tax parce que parce que xamul tax yaakaaruma loolu parce que tay quartier yi xamante ñom ñoo ñom ñoo wër front de mer bi ñom ñoo nek ci côté ci côté dex gi ci côté geej gi. quartier yooyu yëpp oto bi am na fa accès Njolmaan nguy daag sancub géej ndagañ côté yooyu yëpp oto mbalit bi day ñëw chaque deux jours oto mbalit bi day ñëw pour ramasser mbalit yi donc tey problème mbalit fu ñu ko def amul mais problème bi mooy ndox bi xamante ne moom la ñuy génnee si seen mbalit ndox boobu la ñu war a yóbbu ci canaux yi mais les gens sont pressés parce que ñenn ñi peut-être mënuñu denc mbalit bi seen kër dañuy dem tuur ko foofu beneen problème bi mooy aussi itam côté euh, euh, euh, côté côté talibé ngay wax côté ngène xam nga fofu jëloon nañu sax ñu da garder fofu ñu da garder de de de 8h à 18h heures. waaw mooy bi ñu désencombrement. biñu défé désencombrement après mais on a constaté que nit ñi buñu waccé 18h ñom dañuy dem tour fofu c'est un problème de suivi day posé. un problème de suivi mm. mais on a on a ñu ñu proposé lu am solo moy que tay les fausses perdues yu ñu def ci kër yi. waaw fosses septiques yi. fosses la municipalité proposé. kër yooyu yëpp ku ci bëgg fosse fosse septique normalement entrepreneur bi quinze mille francs lañ koy defaree la wax la mairie subventionne mooy joxe sept mille cinq cent yi famille bi joxe sept mille cinq cent yi mais la réaction réaction bi ñu am mu doon cinquante cinquante mais réaction bi ñu gis mais dalul xel parce que loolu yow comme am na ñoo xam ngeen jot ngeen leen defaral si am na ñoo xamante ne tey boo demee seen i kër fosse septique yi wax ni mu nga fo Ah, mais l'autre, tax ah, après d'huile parce qu'on a l'impression que ah, voilà lu xew. mais le problème bi c'est le problème la xam man ci kër ma 15 francs ñu laaj ma 7 500, bi joxal ma 7 500, na ma amul ay ci ginnaw ñom ñu gis ne ñi bëgg nax dañuy non non ñun lepp lu ñuy def Moussa c'est transparent Lepp lu ñuy def koy conseil de quartier wax ñu ñu ñu xam ku xam nga ku narul def ku bëgg def lu leer da nga koy wax ci mbooloo mi mm. yéen a si jumaa yi yemuñu foofu ñu dem ci quartier yi waxtaan ak quartier yi xamante ne ñoom la concerné mm. mais mi Moussa boo demee ci front de mer bi tey mais ñun dañu kontaan ñun xale yi dëkk foofu ah parce que tey euh, nawet bu daa jot kenn du mën a jàdd dem géej beneen mooy nawet bu daa jot ñun duñu mën a utiliser surface yi xale yi duñu fa mën a fonto tey boo demee waa Njolmaan wa Nguy Daag waa Sanju Géej seeni terrain mu ngi foofu waa Njolmaan waa Sanju Géej nawet day jot sax bu tawee bu pare waa Ndiol man dama fubali lu ñu amul woon tey bu tàngee ñëpp dañuy jàdd foofu dem géej bu daan nawet par exemple mool yi dañ daa am problème ba instant bi may wax ni pour jàdd foofu dem géej. ñuy aj seen gaal ñuy tey boo demee tey di nga gis ne ne am na influence bu am solo bu fa am foofu. ñëpp foofu la ñuy jaar dem géej di feexlu ji def lu. mais mais pourtant nag damay expliquer xam nga loolu. xam nga loolu li ko waral mbalit mi mu nga fa li ko waral mooy li la wax nii. Mhm. population yi ñoom ñoo war a. dépôt sauvage moo dul yoon voilà yoon ñoom ñoo war xam li xam ne loolu la ñu war a ak li ñu warul def maintenant la maire aussi itam toogul du seetaan ñoom am na lu ñuy préparer par rapport à sa wax nga ko tout à l'heure am na ñuy préparer aussi tam par rapport à benn clean ëpp foofu mhm. pour nettoyer foofu loolu ce sont des actes citoyens d'accord yoo xamante ne da ngeen si woo population yi parce que il suffit pas que simplement ñu leen di reprocher euh, ñuy euh, def li nga xam ne moom moo di ay dépotoir sauvage mais aussi organiser leen pour que ñoom ñu xam ne seen cër du kese di tilimal mais bu tilim jotee bu setal jotee aussi dañoo war a taxaw c'est ça mais xam nga li waral loolu lépp Moussa mooy ñun dañuy rattraper mhm par ñi dafa am fu mu jóge fu metti foo xamante ne population yi daaw ñu toog seen maire daaw ñu dégg seen maire daaw ñu dégg waxtaan yenn wala orientation yenn yi donc lépp loo gis rek ndànk-ndànk lañ koy def bu atteindre suñu objectif et xam nañ ne population yi commencé nañu sensible par rapport ak démarche bi nga xam ne moom la ñuy def. alors justement ci euh, ba tey fànn boobu nga xam ne moo jëm euh, ci la gestion euh, municipale dañu fi diggé woon également Bargny ville verte Bargny ville verte. Euh, waroon délocaliser euh, lenn ci population yi nga xamné ño ñoo loru ci euh, tefesu barni Géej nga xamné moko dalé ko dalee Ndiaga Samb jàpp minam sax d'ailleurs hein, ba fi nga xamné mom modi donc Guy way waaye li ñu némé ko également moy projet yi ngeen fi waxoon lu ci ëpp ba légui ni kenn ci population yi bougé wul da ngeen ne won da ngeen leen di déplacer ça a fait même le déplacement du chef de l'État le président Macky Sall ñeu ba ci tefes gi constater euh, li nga xam ne la situation joxe woon instruction pour ñu seet comment faire pour donc euh, mën déloger les populations recaser len fenen wala ñu adapter euh, la l'habitat ci boru tefes gi mais ba fi tay Fouras dali di lu xew. waaw Moussa xam nga le président de la République ñu koy remercier ci visite bi mu defoon ci Bargny parce que jàpp naa ne mooy président bo xam ne ñëw na Bargny ñetti yoon. dugg fo xamantene président mosu fa jaar muy Ndiaga sam te ñun ñëpp xam nañu côté bobu ni mel.

nu ñu reloger les populations parce que population yi peut-être amna lu fi jaaroon ci sen ci si si gannaaw joxoon nañ leen fi ay terrain yoo xamante ne peut-être le régime régime bi passé. ñoom moo leen ko joxoon muy Mar Diouf muy Mar Diouf moom moo leen ko joxoon. Mm-hmm. maintenant loolu ñoom jotuñu ko jëfandikoo ba centrale bi ñëw tegu ci kawam. maintenant maire ja maire jàngi ci loolu ci leçon que ne léegi au lieu ñuy jox population yi ay parcelles pour ñu dem tabax ñun municipalité bi nañu fexe nu ñu defaree nu ñu amee ay parcelles jël population yi tabaxal leen ñu dem loolu Moussa mu ngi ci yoon bu yoon bu yoon bu am solo di avancer ni mu war a avancer parce que euh, am parce que Sénélec daf ñu accompagner un milliard yoo xamante ne dugal na ko si keesu Bargny. xaalis baa ngi fi xaalis baa ngi si keesu Bargny. mais même loolu ñu bëri dañoo jàpp ne fi mu nekk nii loolu pour ñoom ay wax la parce que gisaguñu euh, dara loo xam ne concrètement wane na ko Abdou Aziz. Moussa yow am nga compte administratif bu 2016. oui boo ko xoolee di nga gis 1 milliard yi mu fi def boo xoolee budget deux mille deux mille dix bii boo boo ko xoolee di nga gis ni 1 milliard yaa nga fa parce que 1 milliard dafa doo da dafa nekk si benn rubrique boo xamante ne lii xam ne moo ko tax a jóg loolu rek lañ ko mën a utiliser 1 milliard yi Senelec versé nag muy ci 13 compte. te loolu c'est destiné à à Bargny-Ville verte. ville verte pour relogement bi ngeen. pour le logement bi uniquement mais comment se fait-il que ba léegi amul ay lotissement y a encore rien. dama expliquer parce que lépp loo gis rek procédure la. lépp loo gis procédure la xam nga tey bu ñu bu bu fekkoon na ñun li ñu bëgg rek suba dañuy xëy rek tabax kër yi mais yoon dafa am nu mu tuddee nu mu tuddee yoon daf ne am na liggéey yoo xam ne boo ko waree def il faut nga def appel d'offre loolu la ñu def def nañu appel d'offre ñu njëkk a ñu njëkk a dépouiller il y a de cela trois ou quatre mois njëkk a bi ñu dépouiller il s'est trouvé que entreprise yi xam na ñoo ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo soumissionné ñoom ñoo bëgg def liggéey bi mënuñu matal liggéey bi il a fallu ñu yóbbuwaat dossier bi DSMP pour defaat beneen appel d'offre ñu defaat beneen appel d'offre mercredi bi passé ni euh, jeudi bi passé oo nañu les délégués de quartier Bargny yëpp ñi mu concerné yëpp ñu teew ak ñi xaman ak entreprise yi xamante ne ñoom ñoo déposé pour ñu dépouiller dépouiller nañu euh, jeudi bi passé mm-hmm. maintenant nag ñuy déglu euh, yoon li mu wax ci loolu kan moo war a mën a gañe marché bi si ñoom bu fekkee am na ñoo xam ne présenté nañu lu ko mën a def ñu jël marché bi jox ko ñooñu. donc yéen par par souci de clairvoyance ngeen bëgg euh, def appel d'offre pour que ñu bañ a ëllëg naan dafa doon gré à gré da ngeen ko jox ay initiative bopp. waaw parce que parce que li tax mooy le maire bi mu ñëw moom li mu installé mooy transparence donc lépp lu ñuy def nañ ko def ci lu leer parce que nag dañ ñu dénk jox ñu mm-hmm. te suba aussi itam bu dulee fii. ku dee da nga koy laajoo sa borom. mais est-ce que aussi ça ne pas de prendre temps parce que boobu ak léegi nii Aziz yi leen dese si mandat bëreetul de. waaw Moussa. même si on sait que élection locale yi reporté woon nañ ko. Moussa xam nga problème bi mooy même bu fekkee ne li ñu dese si temps bëriwul. Hmm. ñun nañ ko teg si yoon bi ñu ko war a teg. Hmm. parce que population yi ñooñu fi teg pour ñu saafaraal seen i jàngoro. mais buñ koy saafaraal aussi nañ ko saafaraal si yoon. voilà mu mel ni euh, am na ku dugg see. salaamaaleykum 88 628 0013 mbokk mi noo tudd ak fooy wootee. maaleykum salaam. man la Seynabou Sall. waaw na bu nga def. maa ngi fi Moussa mbaa yaa ngi Abdou Aziz mu ngi lay dégg. Moussa li mu wax rek laay dëggal. parce que maire bi bi mu fi ñëwee ak léegi. li mu fi liggéeyagum rek mat ñaari mandat mën nañ ko wax. ah waaw est-ce que. parce que fi nga dooree muy front de maire bi. ñoom ci seen bopp askan bi ñoom ñoo doon wax naan instant bi ñu ngi nelaw ba yandoor ndax bu njëkk ba mënatuñ ko woon ndax mbalit ak xeet gu bon. te tamit Moussa ma leeral rek waa UCG lu ñu mën ñu ngi koy def ci askan bi nee nañ leen téye leen mbalit yi oto yi dina sillonné seen quartier yi fu mu toll dina ñëw di jël si mbalit bi waaye nit mënul commencé projet génne fu mbalit di ja war a dem tracé fu ndox war a aw yow fi ñu bàyyi nga ñëw sotti fan mbalit ba ndox mënatul jàll nawet bale amuñu woon problème yooyu ren lañu ko am armeel yi fees tuuti ñu ñu commencé di bind politique nag moo leen tax a jóg mais nit ki nag buy liggéey dañ koy bàyyi mu liggéey ndax maire Gaye bu Ahmed bi mu fi toogee ba léegi li mu fi def buñ ko doon wax Moussa xajul ci émission man loolu laay wax. Hmm. parce que éducation santé moom kenn rawu ko fi fi mu yóbbu éducation ak santé Bargny kenn raw ko fi li may wax ni codec Bargny kenn du kenn koo xamante ne lépp luy jóge rek wala beneen codec bu am ci département bi lii codec Bargny am kenn musu ko am ñoom ñoo ko waxal seen bopp. parce que maire buy subventionné ay CODEC amagu fi maire buy tabax ay salle de classe di di tabax ay maternité loolu xam nga ne école du domaine maire yi. Hmm. te maire mu siy def lu mu si man parce que euh, école Mbodj lépp la ñu daaneel tabax ko abri provisoire amatu fi reconquête front de mer bi ba ci canal bu bari ñu géej loolu ñoom ñoo ko def wax wàllu kontante lañ ko jàppee ndax ñoom péage lañ ko tuddee Moussa. Hmm. ndax boo xoolee la ñoom ñoo am li ñu am ba pare war ko jàpp bijou defu ñu ko mais loo jël di ki këpp mbalit chaque jour yow balaa moo lor keneen yow lay njëkk a lor. c'est vrai tey ndox mi nga segg sam ndox mu dem mbalit bi boo ko téyee sa kër UCG ñëw jël si ka mais nag nabu mais nag mais <laughs> autorité war na waroon na defar au moins donc li nga xam ne euh, moom moo di foo xam ne de gars yi dañ fay tuuri jëy. mais tuurukaay yow Moussa xam nga fii jamono toll ak bari ñi ni mu mel ak li Aziz wax dëgg la fi ñu fekk bari daa am fu ñu ko bëgg a yóbbu kon lépp mënuñu kaa defandoo mu pare dañuy bëgg a def ndànk-ndànk. jërëjëf jërëjëf Nabou merci beaucoup alor euh, di ko jaajëfal ah donc moom ci euh, woote bi euh, di wax ne mën ngeen dugg ci 88 628 0013 suñu gan tey mooy Abdou Aziz Sy Ndiaye moom mi nga xam ne jamono bi moo yor lépp lu jëm ci wàllu jeunesse ci li nga xam ne moom moo di commune bu baax ñi nekk egalement conseil municipal ca foofee ca ca Bargny Abdou Aziz fi ñu toll woon ci li nga xam ne moom les populations de Barniguej euh, yow ngeen ne da ngeen lancé woon appel d'offre pour que les gens euh, ñu ñëw mais apparemment da ngeen amul woon chance am ñoo xam ne ci soumissionnaire yi euh, mën nañu ko gàddu waaw xam nga xam nga Moussa appel d'offre dafa am ay normes mhm. tey booy def appel d'offre yow da ngay wax montant bi xam bi nga xam ne travaux yi loolu la loolu la loolu la war jël mhm. maintenant ñi xam ne ñoom ñooy soumissionné ñoom ñëw andi ñoom sen appel d'offre li ñu mën a def mhm. maintenant première fois bi ñu ko defee ñu def dépouillement bi def yëpp mais gis nañ ne ñi xamante ne ñoom ñoo soumettre woon mënu ci def liggéey bi léegi nag ñu jël ñu ñu ñu yóbbu ko waat fi xamante ne ñoom ñoo yor wàllu wàllu woobu ci ci ci état bi mhm. DCRP mhm. maintenant biñ ci pare ñu defaat beneen appel d'offre te appel d'offre bi ñu def bi passé jeudi bi passé nii jeudi bi bii nii barka démb la ñu dépouillé c'est en cours la ñu dépouillé bi ñu dépouillé bi ñu dépouillé délégué quartier yi xam ne ñoo nekk bu bu bu Njaañ bu Njaga Sàmb bu Guy Julankar ñu bu bu bu bu nguur nga xamné ils sont concernés ils sont concernés ñom ñep ñu ngi téwon fo bu ñuy depuis hmm. donc lool nak mom lañ fi tégué parce que aussi tam lepp lo gis aduna dafa am ay normes am ay yoon yo xamné fofu ngay jaar pour mëna yegg sur le principe sur le principe hmm. donc lool moy li xamantene amna ko euh, euh, nekkat ci euh, bungi mbok mi assalamu alaykum 88 628 0013 allo assalamu alaykum alaykum salam euh jox Moussa waaw mom la yow la kan euh Euh, man la Mbaye Lisane. Mbaye Lisane na nga def Mbaye ça va bien. waaw ñu ngi waaw da nga bëggoon a wax ak Abdou Aziz Sy Ndiaye. waaw waaw waaw waaw mu lay dégg. Mhm. Euh, maa ngi lay remercier yow mhm. Moussa. jërëjëf. di la ñaanal yàlla yàlla defal la ndam. amiin ak taxawaay rafet na si département bi. macha allah amiin. Euh, di gërëm tamit kooku nga xam ne moom nga invité muy Abdou Aziz Ndiaye président. Mhm. lépp loo xam ne rek wax na la rek dëgg la. moom ku dëggu la dara mënu ko tax wax lu dul dëgg. léegi nag euh, parmi li nga xam ne moom la ñu war a xam mooy ñu war a bàyyi conseil municipal yoo xam ne conseil municipal politique la mm-hmm. maanaam ñoom bu ñu gisul seen ay intérêt ci conseil municipal bi du ñu ñëw intérêt parmi du leen tax a teew euh, li nga xam ne tamit euh, mooy côté front de mer bi Moussa. Mm-hmm. man mën naa si wax lu bëre. waaw allo Moussa. waaw ñu ngi lay dégg waa mbay waaw kay ma ne front de mer bi xam nga monsieur le maire kay Abou Ahmad rek. Mm-hmm. bi mu ñëwee ba léegi. si la ñu nemmeeku ne si côté géej bi fii euh, gisatuñu fi dara loo xam ne mën nañu lor. Mhm. li nga xam ne nag moo xam ne moom moo fi am euh, fan yi passé mooy inondation boo xam ne nawet bi dafa bëri ndox mi bëri yàlla andi ay xewal. Mhm. mais si xewal yooyu yàlla andi nag euh, ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk si côté bi dafa am ñoo xam ne dañuy jël seen ay mbalit di ko këpp si canal bi. waaw waaw léegi bu ñu ko këppee si canal bi nag léegi ndox nag du amati yoon. yaa dégg léegi nag ñi nga xam ne nag ñoom ay politiciens lañu ñoom amuñu benn yéene ci askan wi mhm. dañuy ñëw di filmer loolu mhm. mais li nga xam ne nag moo jaadu avant ñuy euh, filmer ñoom ñu andi seen ay coono andi seen ay mën-mën pour dimbali askan wi li ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci côté bi monsieur le maire jëloon na ay ciment jox na ñi mhm. ak ah, ay béton mais ñenn ñi kenn joxagu leen ci fan yu néew am na yéene pour commencer leen euh, tabaxal leen ko defal leen ko gratuit ci ay yu néew dana am léegi nag li nga xam ne li nga xam ne nag moo am ci Bargny mooy dañu war a joxante ay loxo bokk ndey bokk bàyyi pour l'intérêt population bi mhm. loolu mooy li nga xam ne moo am moo moo am solo mhm. ñu bàyyi esprit politique sain et politique saine mhm. waaw parce que man mii wax yow mi conseil municipal laa woon ci Mariouf def naa fa cinq ans mais boo yi nga xamee ne moom laa doon changé moom laa doon jànge man béykat bi nii li nga xamee ne moo am actuellement nii mooy maire bi fi nekk nii mooy le maire de partage moom lépp loo xam ne daf koy def si dëkk bi moom dana génne wax ak askan wi askan bi jox ko seen xalaat mu soor a def mhm. loolu mooy ki nga xam ne mooy le maire de Patas Gueye Abou Amar Seck mhm. di la ñaanal jaraaf Moussa jërëjëf jërëjëf Mbaye voilà ñu koy ñu koy jaajëfal yéen tam mën ngeen woote 88 628 00 13 dugg laaj seen euh, laaj Abdou Aziz Ndiaye def seen contribution euh, ñu def lépp nag ci yar ak teggin euh, daanaka alors Abdou Aziz ñu toll woon ci ba tey mais est-ce que ba léegi ni gis ngeen ne soumissionnaire yi ñëw jamono bi am ngeen yaakaar ni kenn ci ñoom dina ko mën a porter waaw xam nga xam nga xam nga loolu euh, dafa am ñoo xamante ne spécialement ñoom ñooy seet loolu ñoom ñoo koy saytu donc loolu bés biñ ci yeggee rek information yi ñu ci war a joxe danañ ko si joxe incha allah mais Moussa sànq da nga wax ne ne bi ñu fi ñëwee bu léegi dañu entamé ay projets yoo xam ne yëpp Moussa ñun bi ñu ñëwee lii maire njëkk de priorité mooy éducation c'est la première fois à ñi nga gis maire boo xam ne mu ngi tabax ay salle de classe bi ñu ñëw école sapinoise amoon 5 abri provisoire Manam, xalé yo xamné dañuy jànge ci ay sahet en 2014 bi ñu ñëwé légui actuellement tay bo démé école japonaise do fa fekkati classe gu am ay sahet classe yi fa nek juroomi classe yëpp maire bi tabax nak bi ñu ñëw njolmaan dafa amone abri provisoire manam classe go xamante xalé nguy dag xalé sa sàccu xalé xale si si si si base lañ doon jànge maire ñëw tabax fa classe tabax fa bureau pour directeur bi tey fi may waxee yow nii quinze salles de classe yoo xamante ne ñu ngi koy tabax commencé nañ ko boo demee école de vie di gis salle de classe yi xam ne ñu ngi ko fay defar cinq nga fa boo demee mbëdd am na cinq salles de yoo xam ne ñu ngi ko fay tabax tey boo demee seen kipp tey am na ñaari classe yoo xamante ne ma euh, euh, maire Guèye avant médecin commencé na ko foofu parce que élèves yi dañu woon ay classes yoo xamante ne waratul préfet ordonné ñu tëj ko moom mu jël engagement ne day day tabax ñaari salle de classe te mu ngi si tey éducation chaque année bi ñu ñëw bu léegi ñu joxe ay fourniture ak suñuy partenaire eh, ak suñu foofu seen biir partenaire tey jii nii mooy mooy moy centrale à charbon mënee wax ndaxte lu ci ëpp gis nañu ne euh, ñoom bi ñu commencé di installer di def seen euh, responsabilité euh, bi nga xam ne moom la ñu wax responsabilité sociétale d' entreprise ci lu bëri dafa mel ni ci si la seen nga fa ubbeeku alors que centrale boobu tey bo xoolee bëri na ci li nga xam ne mbokk bari ñi dañ koy dingat Moussa en deux mille quinze en deux mille quinze booba li ngay wax ni amagul en deux mille quinze commune de Bargny mo jënd ay central bi manam commencé wul won di commencé gul won génn xaliss diko joxe d'accord commune de Bargny mo génne jënd ay fournisseur hmm. maintenant bi central bi commencé nit nak da ngay am ful la nit bu nekkee sa dëkk difa difa def ay activité dafa am lu ko war ci dëkk bi taxaway bobu la maire am moo tax centrale bi doon jappalé commune de Bargny ci ay fournisseur tay fi ñuy wax ni ñu ngi waajal ay fournisseur encore donc boobu ba ñuy joxe fournisseur man bi may jang école Ben yoon la ma sa jot fourniture Ben yoon ben yoon la ko y a jot te bobu fay élection la mais tay chaque année de façon régulière nous joxe ay fournitures ci école Bargny mieux essai communal masul am suis essai yi am école bu ne mo da organiser essai mais bi maire ñëwee ba chaque année mu am ñaar essai communal yo que commune de Bargny mo koy financer bu paré aussi tam jël des subventions jox ko les les écoles de Bargny 12 écoles primaires de école bu si nekk jot nga subvention boo xamante ne si commune de Bargny la jógee masul am ci Bargny côté bi nga xamante ne moo leen jaboote maire subvention nekk masul am si Bargny tey man mi nekk seen Bargny dañuy am ay difficulté pour inscrire des élèves wala élèves yi amuñu fu ñu mën a dem jàngi mais tey maire jël lu toll deux cent élèves yoo xamante ne moo leen di fayal si école privée Bargny am na ñoo xam ne am nañu seen bac am na ñoo xamante ne am nañu seen BFEM donc tey li ñuy liggéey ñun li ñuy entamé mu ngi am résultat boo demee tey par exemple Euh, euh, si santé bi par exemple tey boo demee poste santé Ndiolmane ñun ñëpp xam nañ ne ICP bi daawul finaan poste santé Ndiolmane parce que batiment bi daf loon menacé wu pour daanu ci kawam tey ñu daaneel ko defar ko boo demee ñu Géej ñu ñu ñu ñu defaraat po poste santé Bargny Géej chaque année aussi tam ñu subventionné en médicament poste santé poste santé Ngouda poste santé Bargny Géej poste santé Missira Ndiaye Diouf poste santé Kipp ñu subventionné chaque année. à hauteur de cinq millions de francs de médicaments loolu mosul am Bargny donc tey li ñu entamé noonu loolu njariñu askan bi la tey fi may waxee yow nii euh, organiser nañ fi benn forum sur l'emploi bi sur sur l'employabilité daaw defoon nañ ko daaw biñ ko defee ba pare fi may wax ne am na quinze jeunes yoo xam ne génn nañ formation ba commencé nañ liggéey te ci foofu lañ jaaree loolu mosul am Bargny école Dakar ñëw maire ak i andi fii Euh, directeur yu 3FPT xam ne moom mooy financement wu jàng yi kooku jël ay élèves di leen fayal si turu commune de Bargny gratuitement ba tey loolu mu ngi jur njariñ ren aussi defaat nañ ko ba yeneen école yoo xam ne ñëwuñu woon sax ñëwaat nañu ren tey EMP ñun ñëpp gis nañ ne ala école boo xamante ne waa ba xamuñu ko woon mais tey fexe nañu ba doomi Bargny ñu ngi dam dem EMP di gën a yokk seen taxawaay parce que maire bi am na ay ndaw yi muy jël en charge pour ñu dem jàng foofu jàngi xam jàng liggéey mën am lu ñu mën a def suba donc kooku jàpp naa ne ay projet am yu mu teg mu ngi avancé mu ngi dem beneen mooy bu ñu demee si wàllu économie tey lii ëpp solo ci njiit mooy nga am vision am xalaat monsieur le dafa xam ne ne am na ay xéwal yoo xamante ne mu ngi ñëw ci département mu ngi ñëw ci commune bi notamment le pôle urbain de Bargny notamment le KRPS bi xamante ne mu ngi ci yoon bi tey boo bo démé complexe mu ubi fa luñuy wax maison de de de de l'entreprise et de l'innovation kër gogo xamné mom la ubi li ko tax a jëkk formaliser li xamné moy mooy groupement yi parce que li amone bar ñi moo la ay jigen ñuy dajé di nat du tour di dem sen yoon mais tay mu formaliser len fexé len ba ñoo ñu am ay kayit te kayit yoy buñ ñu ko amee daf leen mëna permettre pour buñu soxlé financement pour sen liggéey gëna mëna jëm kanam ñu ñu financer len tay mu mettre en place ce qu'on appelle le crédit municipal tey am na plus de trente groupements yoo xamante ne commune Bargny financé na leen te ñu ngi liggéey am na plus de deux cent individuels yoo xamante ne commune Bargny mu ngi leen di jàppale te ñu ngi liggéey am na yeneen i projets yoo xamante ne maison de l'innovation et de l'entreprise mu ngi koy teg donc tey jàpp naa ne le maire est en de faire son boulot ñun équipe municipale bi fi nekk yaakaar na ma ne lii xam na ne moom la ñu waa Bargny sant ñu ngi njiim pour def ko même ba ñu defulee à cent pour cent. très bien parce que loolu mooy parce parce que mm-hmm. Mm-hmm. parce may wax ni mm-hmm. du sur cinq ans si quatre ans yii lañ ko def daanaka parce que 2014 booy soor a ñëw mënoo liggéey dara parce que il faut nga am euh, maîtrise outil bi nga xamante ne moom nga yor bu pare soor a mën a débarrer donc loolu doon na loo xamante ne def nañ ko ci bari ñi mieux Moussa tey bu ñu ci wàllu wàllu. ci wàllu euh, euh, ci wàllu sport parce que man bàyyi la président de la commission jeunesse sport donc tey bi ñu ñëwee li njëkk a def mooy def benn forum sur le sport boo xamante ne ñii ñii seen xam-xam màcc yëpp ci espor ci Bargny ñoo fa teewoon joxe ay orientation si la ñu fexee ñu tegaat Bargny volleyball club si la ñu fexee ñu tegaat Bargny basket club si la ñu fexee ñu tegaat BC

Euh, du li kay mandargal moy en fait une gestion de proximité man ñaari ñaari type de gestion il ma gis yi nga xam ñoo une gestion de proximité. ah c'est dommage. alors. Euh, Moussa <laughs> Moussa ma yeggal rek. waaw parce que xam nga parce que xamul tax euh, parce que tax c'est important. su ma su ma su ma la bàyyee. wax je poserai wax tuuti rek fii wax tuuti rek ñëwaat ci yow. parce li Souleymane génn nii gestion de. proximité yow xam nga loolu. Hmm. man en tant que président commission jeunesse et sport chaque jour ngeen gis ma hmm. Hmm. tey ñun président commission jeunesse et sport yi paase donc loolu mooy gestion de proximité. aussi par exemple sur le volet social. Mm. mais qui raay tay ñun bi ñuy ñëw ginnaaw raay fenkoon courant mais tay fenkon à 100% pour quoi fenkon na courant dox à 60% par exemple tay fin mën wax à 80% amna dox cent courant mais waxande tay à 100% amna amna amna courant mm. mais ndox mi te ñu nekk ni aussi tam diko lijeenti pour ñu mëna satisfaire besoin bob ci té halfa babakar amna fo xamna ne amna am na poste yoo xam amul won dox amul won courant mais tay fexé nañu ba lolu moy taxaw ci soxli askan bi mhm. te le maire mu doon ko xamantene ku jige population bi la Moussa yow xam nga ci dara wa légui Abdou man nama sétlu né yeen xam nga fimu nekk bés boobu ak léegi Assane sa way mu ngi mu ngi tap deñum quoi di di wa sen bilan alors dañu sétlu né dëkk bi aujourd'hui euh, la lumière euh, l'éclairage public est absent loolu dañ ko seetlu presque sur une une une une une je sais pas moi euh, mbedd les plus grands axes de la de la commune guddi day lëndëm rawatina ñi nga xam ne dañuy faral di teel di xëy le matin parce que dans la dernière fois on nous a euh, signalé ñaari cas ba ñetti cas agression yoo xam ne dafa dal ci ay jigéen euh, beneen bi mooy la voir, yi soo dit jëlee yi excepté li nga xam ne di route nationale bi ba day d'ailleurs boo demee ci espèce rond point bi terre bi favorisé au niveau donc euh, de, du poste courant Fofu c'est devenu le calvaire des populations Nous disons également Fofu sur le même site parce que si vous arrivez là resté gis nañu Nous disons les xam ay auto yoo euh, donc la desserte à l'intérieur de Barni, auto, il venir ñuy stagner faut bloquer la circulation au point que même la circulation des des services et des biens et des personnes dafa poser problème nga jël euh, route yi les axes yi et les pénétrantes Bargny etc. ba et dara au pont de Barnier. vous avez le projet projet ak vous avez phase euh, de euh, remplacer sa position euh, sur Barnier. war faire defaral ñu dara mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous avez bëgg tiitaro ay defar école des poste de santé etc. alors que ces problèmes là sont là épineux merci Moussa merci Moussa Je vais compter si information nga si si si si femmes di leen masawu bu mm-hmm. Euh, di wax ne di wax ne di wax ne Moussa. Mhm. Euh, xam nga problème éclairage public la. Mhm. problème éclairage public ñun bi ñu ñëwee bu léegi éclairage public bi intervenir nañ ci ñetti yoon. Mhm. ñetti yoon mais ce qu'on a mooy à chaque fois bu ñu changé ampoule yi trois mois après ampoule yi day fay maintenant oo nañu benn technicien defal nañu diagnostic gu électricité Bargny bépp éclairage public bi defal nañu benn facture facture bi nag xaw na cher. mais le maire mu ngi travailler ak équipe am mm. pour que ñu mëna solutionner lool parce que xam nañ ne loolu nag askan bi daf ko soxlé mm-hmm. parce que ñun ñi dëkk ñi ñun ñëpp conseil municipal yi yëpp ku ci nekk lool day dal sa kaw parce que da ngay jëg fajar wala ngay dox guddi wala ngay dox heure bo xamantene lampe ngay soxlé mm-hmm. donc donc yeen ni ko sentiré ñun non lañ ko sentiré mais ñu ngi ci di dem di ci liggéey pour loolu mëna pour loolu mëna safral mm. pour loolu mëna am solution ñu bëgg régler de façon définitive mm-hmm. beneen bi mooy ci loolu am nañu contact ak état ba on a deux cent cinquante lampadaires solaire hmm. yoo xamante ne war nañoo bat ñi hmm. dèjà ñëw nañu nañu étude yi bu pare xam nañ fiñ ko war a emplacé wu lii des mooy ñëw samp poto yi lampe yi tàkk ah c'est une parce que le maire nag parce que le maire du koo xam ne day toog di day jëli di andi Ah, donc loolu information la bu ma la loolu c'est une information Abdou Aziz jàpp ko am ngeen deux cent cinquante deux cent cinquante lamp lampadaire solaire ANER moo ñu ko moo moo ñu ko jox ANER c'est l'agence nationale ah, xam nga lan la ñuy bañ ah, Assane euh, euh, tungu ne du teew ñuy am na benn bande annonce buy am en fait benn jingle buy am ci jokkoo avant ñuy ñëw alors le chef de l'État avec tout le respect qu'on lui donc lui voue euh, dañu fait ci affaire soufou que les 400 millions de Barni pour euh, les les éleveurs dinañu ko jot d'ici mois de février aujourd'hui on est presque au mois de décembre c'est-à-dire la fin de l'année ba port minéralier est fa le port minéralier est vraquier de jëloon suufu soufou laloo ci diggante Mbaliboor jëm euh, ci pôle bi aujourd'hui tous ces gens-là voilà ils sont presque au sommet parce que ñu doon bay Ils ont sax espace yu ñu aménagé sans compter espace bi wa centrale bi jël ci les populations de Minam ak ñi nga xam leen reloger mais aujourd'hui est-ce que day a des promesses 250 lampadaires 500, 400 millions di ngeen jot après les populations vont rester euh, comme ça. Moussa man kuma xam habitude wax wala maîtriser man lu ma wax rek. en tout cas on n'est pas en campagne politique. non non campagne ñun sax campagne dañuy wax dëgg saakaatuma lu dul campagne. waaw policiers yi nag Assane. donc beneen bi mooy bi mooy beneen bi mooy. beneen bi fi wax sax lu am solo muy route muy tali yi. Hmm. mais Promoville war na démarrer parce que boo jaaree Bargny di nga gis ne am na am na accès yoo ne piqueté nañ ko. d'accord waaye seetlu ko. muy li ko jëlee quai de ba ba EDK. E hmm. lii lii ko jëlee stade bi. dem ba biir Fenkon mhm. lii ko jëlee euh, kër général Fall dem ba jàmmalaay mhm. lii ko jëlee Sonadis ba sancu géej mhm. accès yooyu yëpp Promoville daf ko war a def d'accord yeneen accès yi xam ne moo ne ci biir dëkk bi nag on est en de travailler avec le conseil municipal pour xool nan la ñu si nan la si intervenir parce que ça demand aussi tam beaucoup de millions. mais ah, ah, beneen bi mooy. Ah, Aziz nga ma dagg foofu sa rek Promoville gis nañu ko fii à Rufisque Rufisque finalement état dafa rocci wat xaalis yi nga xam ne jox après la situation de Sococim finalement ñoom li ñu namoon ci Promoville parce que rapproché wu si état aussi loolu mooy risque bi moom bu état moom moom ngay yaakaar su roccee six bi da ngay daanu. non problème bi mooy état doo jox xaalis. Promoville boole ay partenaires Promoville. Promoville Banque mondiale moko financer directement oui c'est pas l'état du Sénégal mais pourquoi est ce que à déjà ça ne termine pas. parce que déjà a amatuñu sax xaalis. non damay explique rek Banque mondiale moko financer L'état amna lu mu ci participer mais Banque mondiale lu mu si lu mu si lu mu ci def mo upp fouf li ci état di def. Hmm. donc te japp nañ ne Promoville day yegg parce que le président de la République dafa tek ay projets yo xamantene des projets sociaux lañ ko war mëna tuddé parce que lolu kenn masu ko gis. mandat bi léegi mu jeex de bu ma Macky Sall à moins que ngeen def ab troisième. non loolu dinañ ci wax après. d'accord waaw loolu dinañ ci après. maa ngi wax beneen bi mooy voilà voilà gis nga xel dal ñu port minéralier de Bargny. xam ngeen ne man duma président buy bàyyi ñuy noot askanam. jamais donc les cinq cent millions de Bargny seront payés d'ici la fin du mois de février. voilà mu ngi promettre non damay wax rek damay wax non damay wax damay wax man mm. du ma promettre mm. man damay wax li xamante ne moom laa xam mm. effectivement la président ñëw na ngeen ci biir campagne bi ne dana dana dana indemniser les populations yi xam ne ñoo loon béy ci pour minéral yi ñooñu ñëpp dem nañu préfecture entendre nañ leen def nañ li ñu war a def lépp lii des mooy lan mooy dekkee si xaalis bi ñu ñu jot ko aussi te aussi ñii si dox ñu ngi te japp naa ne aussi itam lii war a am incha allah président dana ko def parce que nag nit la koo xamantene day sàmm kàddoom donc moo tax mu wér ma ne moo tax mu wér ma ne sori moo tax mu wér ma ne population yooyu après nii ci lan la ñuy dund parce que ñoom bay lañu yaakaaroon fa laa jëm mhm. moo tax mu wér ma ne mu wér ma ne président dana def li mu war a def beneen bi mooy béykat yooyu ngay wax noonu suñu mbokk yooyu ñu di leen masaw di leen sant ci taxawaay bi ñu am aussi si Bargny parce que tey fi ñuy waxee yow ni ñoom ñu si bëri ñu ngi doon bay feneen mais tey le maire mu ngi leen di accompagner bu ku si nekk fi ngay béy wala ñoom groupement yi fi ñuy béy maire accompagner leen yóbbu leen fa benn gardien fayal leen gardien. boo xam ñuy béy fële na le. boo xamante ne moom mooy sàmm seeni tool ndax nag ci dafa daa dugg. waaw loolu moom gisoon nañu ne. donc chaque année donc loolu. donc loolu le maire mu ngi leen di jàppale ci loolu. am na année boo xamante ne subventionné nañu leen. donc maire bàyyiwul ay population te lii nga problème bi ngay wax ni mu ngi ciy dox guddi mu ngi ciy dox bëccëg ci lu ma yëg ak lu ma xam. Mhm. te am naa yaakaar ne incha allah dana réglé wu. alors Abdou Aziz euh, euh, lu bëri dem jamono bi euh, dañu koy seetlu ci dëkk bi mooy wax ngeen ne gestion de proximité ngeen di def alors c'est vrai ñun comprendre ñu peut-être aussi si affaire administration la parce que tey boo seetloo ñu si ëpp da nga nekk ministre nekk maire waaye tey jii ni suñu maire. je suis le directeur de cabinet du euh, ministre Omar Gueye ci la euh, collectivité euh, est-ce que vous dévoyez un peu sa responsabilité locale nga xam lu ci les dossiers pour nous mener a gaaw day également le maire n'est à la disposition de la population et di ko dund à la mairie que mu n'êtes souvent des pouvoirs délégués parce que absence pour obligation professionnelle. merci Moussa Il faut fay faire remercier le ministre Omar Gueye en tant que parlementaire je ne dis pas en tant que partisan du maire ou bien en tant que mais en tant que Bargnois parce que bu jëlee doomu Bargny am confiance moom tekk ci wetam nommé que directeur de cabinet loolu ndam wa bargni la donc ma koy ma koy remercier di ko féliciter. si si poste poste directeur de société wala d' entreprise wala comme ni ñu def gaañi rek. wa xam nga xam nga Moussa lu état bi wara a def yow nga def ko jaadu nañu remercier la donc loolu motax tax ma koy remercier te jàpp naa le aussi maire borom xamam la ndaw la. li ci kanam avenir am mu ngi ci kanam jarul mu yàkkamti beneen bi mooy beneen bi par rapport ak liggéeyu Bargny mhm. loolu empêché wu ko mu liggéey Bargny ba démb suba demb demb suba si suba lañ commencé 11h ba 18h. non dama xam ne liggéey non dama expliqué rek damay rek damay expliqué maire bi ni mu war a doxee mu ngi fonctionner normal. dara xewul kon dara xewul mu ngi fonctionner ni mu war a fonctionner. dama dama remarqué kene sa maire bi tey la gën a. te la gën a taxaw tey la gën a parce que soxli dëkk bi fu ñu ko yegee ñu ngi intervenir ñu ngi taxaw d'accord alors Abdou Aziz da nga doon wax sànq que da nga di euh, subventionné euh, éducation mais gars yi nee nañu depuis euh, depuis daaw daaw jéeg subvention yi daaw jéeg mooy 2017 waaw donc année yi jàll mhm. ñaari année yi jàll nga xam ne nawetaa nañu à

di euh, féliciter aussi euh, Abdou Aziz Ndiaye ñu koy suivre depuis lors. absolument mu nekk ci yoon nekk ci liggéey bu ama am solo. mais mhm. euh, fi ma yem rek ci déglu bi foofu laa bëgg intervenir muy la responsabilité du maire en tant que directeur de cabinet mais aussi en tant que maire. Mhm ma joindre ci Abdou Aziz Ndiaye ci remerciement à monsieur le ministre Omar Gueye bi nga xamante ne wóolu na kenn ci suñu ay doom. Mhm. ba teg ko ci wetam ndax ku xam ne directeur de cabinet du ministre du tuut. Mhm. président Macky Sall nag su dollee Bargny jël ndax Bargny liggéeyal na ko lu ëpp loolu. Mhm. mais beneen bi may wax Moussa mooy il faudrait que ñun Bargny ñu xam. que une mairie du monsieur le maire rek moo koy doxal. c'est la responsabilité des conseillers municipaux qui sont élus. man pour man par respect aux populations ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen wóolu ba dénk leen seen ay baat mhm. dañu war a xëy ci seen ay soxla di ci gont mhm. man mënuma comprendre nga bokk ci équipe municipale au cours de mandat ngay liggéey ay élections yoo xamante ne xamaguñu kañ la <laughs> pendant ce temps soxlay askan fan ngeen ko teg mhm. Et le code des collectivités locales dafa am lu mu wax ci mhm. conseillers municipaux qui ont présenter devant les populations mhm. pour donner des dagaan mhm. il faudrait quand même un moment que nous les responsabilités Abdou Aziz mais communiquer ñu ngi ci soxlaw askan ñu ngi ci xëy bi ci gon mm-hmm. parce que am na lu bëri loo xamante ne ni su ma dégluwul woon émission bi léegi ni du xam ne ñoom ñu ngi ciy liggéey mm-hmm. relais boobu nag seen équipe communication dañ koy def mais conseillers municipaux yi dëkkee ci suñu ay quartier ñaan ñu seen ay baat ñu jox leen ko ñu ci conseil municipal bi mm-hmm. seen liggéey la aussi bu ñu fàtte ne la mairie de Bargny mm. ba ñu ñëwee dañu inscrire dans une démarche participative et inclusive mooy lan mm. tëraloon nañu fi lu ñuy oowee un cadre de concertation ñu demande tous les cadres et les identités remarquables de Bargny ku ci nekk ca euh, fa suñu borom may xam-xam. Mm-hmm. nga inscrire fa ñëw jàpp ci liggéey bi. Mm-hmm. defe naa cadre boo bu yegg si woon ba heure bi mm-hmm. Bargny xëj na am na problème yu bëri yu ñu dund ngeen ñëw nga ñëw ci léegi. dinañ ko dépasser wala dinañ ci am ay solution wala dinañu alerter avertir. ba xëj na. fu situation yi yenn yi yegg du fa yegg mm. man d'accord ma utiliser ay réseaux sociaux ci kilifa te am accès directement ci équipe municipale bi wala ci bureau municipal bi pour wax ak ñoom mm. donc yenn yi par moment politique baax na lool ñu sax mm. mais ñu koy def nañu koy def ba bu jotee mm-hmm.

jàmbaar la ndaw la kilifa la aussi parce que parce que conseil technique le au ah ministère de la jeunesse mm. donc donc du ku ndaw ñu ngi koy remercier ci intervention yi ñu def ak xalaat yi ñu def aussi jàmbaar la mu ngi béy waaram ci mbir mi euh, Moussa par rapport ak euh, subvention yi mm-hmm. Moussa ñun en 2014 lañ ñëw 2014 ñu subventionné ASC e à hauteur de 100 000 francs 2015 nous subventionnons à hauteur de 150 000 francs. 2016, nous subventionnons à hauteur de 200 000. 2017, nous subventionnons à hauteur de 200 000. nous subventionnons à hauteur de 250 000. 2017, nous avons une semaine après si le dégât est amé. Mm-hmm. Préfet suspendre le 2016, subventionnons 2018, nous avons subventionné 2018 lañ leen subventionné 2019 lañ leen subvention. donc 16 à 18 amul subvention. non 16 subventionné nañu 14. 15 16 17. 18 moo amul subvention parce que nous amul woon. D'accord. D'accord bi moy aussi ñom ñen ñi dañuy juyaar ne subvention yi pas destiné uniquement aux ASC. C'est destiné aux associations culture bi mu ngi si ngi football baa ngi et basket ngi fi basket beneen bi tey est-ce que xam nga ne les arts martiaux club arts martiaux yi ne Bargny masuñu am subvention. ah subvention nañ nañ leen ñun. mais lu tax daawoon na leen jox. non dama ne dama ne non masuñu jot subvention laa wax ñoom. ñun bi ñu ñëwee lañ leen subventionné. Ah, ñoom ñoom ñoom jot nañu deux cent mille. club bu ne la ñu commencé ñoom di am subvention. deux cent mille la ñu jot euh, weer yi passé club ne deux cent mille lañ jot. ci lañ subventionné aussi itam ay activités culturelles mm. yoo xamante ne ñu ngi koy def par exemple Ndiaga Samb bi ñuy organiser seen régate. subvention nañ len guy julankaat bi ñuy organiser lamb ben bi subvention nañ len mais 200, 250 000. subvention ASC c'est pas très. Moussa man je suis. je suis limité est-ce que. Moussa man je suis un acteur. règle le problème ko man je pense bien man man acteur yu nawetaan la. Hmm. parce que jiite naa ASC parce que ben, yow xam nga ben ASC mën na dépenser deux cent ci ben bëccëg. jiite naa ASC loolu la bëgg wax donc 250 000. du pour ASC bi mu fonctionner si. d'accord. mais maire bi day dindi loo xamante ne daf koy koy jàppale e. parce que benn match rek yow du obligation du obligation benn match rek benn match rek bu la neexee nga dépense si trois cent mille wala et quelque final day jeex nga def sa budget tu te retrouves avec trois millions et quelque donc deux cent cinquante mille yéen subvention amu mais def ka nag mais def ko mo moo gën bañ ko def motax mer maire ne nañ ko def. mais mais Abdou Aziz euh, tout à l'heure question bobu amul won euh, donc suite mooy euh, li jëm ci walu espèce giratoire là ko mën a woowee nit ñi buñu yéwo tout le monde est stressé ak garage bi nek juste à côté. qu'est-ce qui se passe loolu nan ngeen ci andi solution Abdou Aziz. ça ça pose problème pour les Bargnois. Moussa xam même pour les étrangers yi nga xam ñoy faral di jaar Moussa xam nga loolu lu koy régler. Ah. xam nga tay Promovilles bu koy liggéey. Ah, donc c'est ça c'est prévu pour ça. buñ koy liggéey. garage clando bi fay jóge déjà ñun ñoom position c'est provisoire. voilà ñun pour nan lañ leen di aménager. alors léegi euh, euh, euh, li nga donc les pénétrantes les pénétrantes Mbot également voilà donc ça ne va pas fii également bi jëm e ça va pas etc. bon excusez la publicité etc. cetera nga côté peut être peut être bi fa dugg jëm ba ba expliquer. ça la parce que ñun ñoom bu ñu ñëwee dañu laaj lan lañ soxla. Promoville boolewu ci Bargny Bargny ville verte. non déedéet. ah boolewu ko Bargny ville verte. loolu projet la à part. mooy mooy milliard ba ngeen wax. voilà loolu projet loolu projet la à part déjà pour information Bargny ville verte courant ba nga fa déjà poto yi dem na ba Bargny ville verte. ah bon. waaw parce que veut dire que donc commencé ngeen. non dama lay expliquer rek non dama lay expliquer ah, bah, xam nga gars ñu ñu ngi leen xam nga problème bi mooy. Ah. tey ku fa dam tey jël sa jël sa vélo wala nga jël sa oto dam di nga gis ne poto yaa nga bu Bargny ville verte. d'accord

loolu euh, nan ngeen ci andi solution. wa xam nga damay ñew ci problème d'abord abord waxande ndox bi. il nous reste 2 minutes hein, donc de plus. xam nga xam nga problème ndox bi waxande dañu def appel d' pour waxande bu ñu defee appel d' offre waxande am ku ko gagné ku gagné marché bi kooku nag bi mu demee ci biir moom mu rencontré ne moom mënul def projet bi. d' accord ñu retiré ñu retiré projet bi. foofu defoo woon appel d' offre xanaa. ah dañ def appel d' offre. d' accord ñu retiré projet bi fi mu toll nii ñu ngi préparé waat beneen appel d' offre. mais en attendant ñu teg benn borne fontaine boo xamante ne ñun ñoo ko amu fa woon boo xam ne population yi danañ fa mën a rot mais c' est vrai que ay conditions yu difficile moo am foofu mais dam nañ fa récemment samedi bal passé rek on était à Waxande d' accord conditions yu difficile moo fa am mais Moussa ndox bi loolu la woon ndox bi ñun ñoo ko diggee courant bi ñun ñoo ko diggoon te courant bi ñëw na mais ndox bi moo ñu dese foofu Waxande te incha allah ñu ngi siy dox ay pexe ak waa Waxande pour solution mën am ci loolu. benen bi moy benen bi moy benen bi moy par rapport ak euh, robinet bi ñi fay tok ñi ngi expliquer non yi ñuy def. mais lolu il y a beaucoup d'étrangers yo xamni ne voilà donc. mais lolu je pense que foofu la ñu mais lolu mais mais mais je pense que Moussa. ni ma ci amee cër non nga ci amee cër en tant que simple citoyen. mais il faut faudrait mobiliser la sécurité non damay expliquer pour que la police. motivé ko mu mën def davantage de rôle. damay expliquer damay expliquer yow tay am nga droit dem police wax sa xalat ci lolu police déglu la man am naa droit dem police wax sama xalaat police déglu ma am nañu droit aussi tam à fortiori jëm falaa jëm l'institution municipale tam aussi bu amee information bi war na mën a wax police bi xam ne moo yor sécurité dëkk bi par rapport à ça mais loolu dégg naa ko si wax li war a waxee ku ne sa dernier mot looy tàggatoo Moussa dafa jeexaati national waxuñu si si wax ndax li ñu waroon a wax ci lépp Ah, lu ci ëpp da nga and <laughs> andiwaale sa këyit ak sa communication. déedéet déedéet non non non non. non man limay wax man man man limay wax. dama ko dund maîtriser. sa tagato laaju ko. sa tagato sama tagato moy mu doon sa national mais sa tagato sama tagato moy euh euh euh Sénégal gis nañu ñun ñëpp mu ngi avancer mu ngi dox avec le président Macky Sall. par rapport à li mu def lepp mënu ma ko lim nak le département de Rufisque le ministre Omar Gueye coordonnateur du département est en train de faire un excellent travail un excellent travail pour le parti APR parce que mu ngi doxal mu ngi waxtaan ak nit ñi mu ngi dem ci gox yi mu ngi dem ci ñëpp defu leen ci dëkk bi dara da ngeen jël suñu ay milliards di ko passé passé Moussa jël suñu milliards di jël seen ay Moussa Moussa ku mu ku mu neex ku mu neex nga wax lu la neex parce que da ngay politique mais ñun xam nañ ne population yi population yi non population yi population yi bu fekkoon ne bu fekkoon ne bu fekkoon ne gisuñu confiance si président Macky Sall duñ ko falaat yow xam nga ne Bargny maire Guèye eh, Abdoulaye Seck yow ma sax faluñu la yow la neexee sax nga wax falaa jëm falaa maire maireu Bargny maireu Bargny élection yi passé bureau yëpp moo ko gagné amul benn bureau boo xamante ne opposition gagné nag bureau laa wax ma la sant ak l'aide de Benno Bokk Yaakaar ça devient facile da ngeen bëri foofu non moom mooy le coordonnateur de Benno Bokk Yaakaar moom moo dugg ci këri Bargny yëpp amul Moussa Moussa yow Bargny nga dëkk gis nga campagne yu Bargny yow xam nga ne maire moo dugg ci këru Bargny yëpp amul kër gu mu bàyyi donc maa ngi di la sant di la gërëm di la ñaanal yàlla di wax ne ne waa Bargny nañu xam ne ne am nañu maire bi ñu waroon a am asalaamaaleykum wa rahmatulah Abdou Aziz Sy Ndiaye doonoon suñu gan ci seen émission jàkkaarloo politique tey ci waxukaay bi mu Pouye moo ci nekkoon Assane Diouf féetewoon ci xarala gi di daje incha allah beneen dimanche ak beneen gan di leen jaajëfal lu bari ci déglu bi di leen wax ñu yendu jàmm jërë ngeen def ci déglu may sa ge kumba fal borom faraxati canjam ndiyem dabamam say njaayooy ndigal jamboori xel koom jamboori xel koom ndigalooy waal jambaar